commission sociale bi aju ci kuréel gi di junnatun liman nazamaho di kuréel gi cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke taxawal ngir ñuy taxawu mboolem askan wi loru ci mbënd mi ci dëkk bu tedd bi di Touba yëkkati nañ seeni jéego ci ndigalul sëriñ bi dem nag seeti mbooleem ñetti njaboot yi nga xam ne nii dañoo am ñu ñàkk seen bakkan ci mbënd mi le ci délégation bu takku jébbal nañu lu tollook ñaari million ci suñuy koppar jébbal ko ku nekk ci ñetti njaboot yooyu yi le boole ci nag kàddooy masawu ak ay ñaan yu bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. ngir lii ñuy bokkam xam nañ ne sax euh, waajuram ma nga euh, Fuuta te it incha allah dinañ dem ba foofu àgg ndax jaral nañu lépp loolu ndax ndax sëriñ bi moom yitteem ji mu am ci doomu aadama amul fu mu ko yemale kon moo tax ñu ànd ak kilifa yii. kii ngeen gis mooy sëñ Abdoulahat moom sëñ Habibu. moom kilifa gu mag la ci dëkk bi jiite Touba ci kanam topp ci sëñ Habibu mu mag bi nga xam ne mooy doomi sëñ Fallu ñoom ñaar ku gis kii rek gis nga ki ci des. sëñ Abdoulahat Bousso mi moom tamit moo jiite commission sociale bi nga xam ne mboolem ndimbal yi ñuy def. ci moom lay jaar bokk it ci njabootu sëñ Touba. Euh, sëñ Mourtala Lo mi itam nekk ci commune bi remplacé fii daal di fi toggalaale maire Abdou Lahad Ka ndax sëñ bi def ñoo boole ah, kon li ñuy def dañ ko war a ànd euh, dëkk fii itam ku ne xam na ne sëñ Mambay Ñaŋ ñii euh, li tax lépp yomb moo ñu ko yombalal ndax dafa nekk condition sociale waaye tamit tund yi ak xur fii yëpp mu doon ko xam ne poste de santé yi nekk Touba yëpp moo leen di coordonné kon moom taxawaayam it moo yombal lii ba lépp ñu mën koo xam nañ fi ak délégation bi ñu àndal ñëpp waaw kon ngeen xam ne euh, chef de quartier bi ak yéen ñi ak euh, chef de village bi ak mboolem euh, fii nga xamante ne mooy mooy mooy mooy gaar bi defe naa gaar bu gaar bu mag la jàkkee moom waaw Touba mosquée la ba tey kon mboole seen ñu ngi leen koy ziyaare te di yeesalaat suñu ñaan ci moom di di wax ne rafet nañ jot ne fii mu ko defee ak nii mu ko defee ku suñu borom nar a texeel donc lañ daan gis mandarga yooyu ci moom kon rafet nañ ci njort la ca topp rek mooy sëñ bi am loo xamante ne daf ko yëkkati ngir ñu teg ko ci loxoy bokkam bu ñu jokkoo ak ay waajuram incha allah ba waajuram ne ñu jox leen ko dañ leen koy jox benn la su fekkee dañ ko faa war a yóbbu it ñun jëkk nañ ngir yóbbu ko ba foofu waaye dañu war a ñëw ba ci fii massawu leen ngeen xam ne incha allah am na limu ñaari million yoo xamante ne dañ ko jox ndàmpaay ay bokkam te loolu ñu def ko ci turu sëriñ bi ak ci turu commission bi mu junnatum li man nata bi mooy moom yónni sëriñ Abdou Lahad ci Touba ci sëriñ Moustapha Lo bi moom si Lamine la moom soxna muslim sëriñ Touba moom it bokk ci adjoint maire sëriñ Youssou Diop ñi nga xam ne moo jiite xes bu tarxeex ak sëriñ Mame Mbaye moom sëriñ Modou ñu ñëw teewal ko fi ak euh, man mii di wax ak ak ñi ñu àndal ñëpp ñu ñëw teewal ko fi ngir masawu leen ci xew-xew bi fi am ci sang boobaak léegi nag mu ngi ci xelam mi ngi tam ci sunu xel ñun ñi mu fi yónni ñëpp waaye xam ngeen dekk bi dafa tollon fo xamni euh jóg jafé won na nit ñi sonnon nañ ñu nekk ci luy jéem xet li ñen ñi ak jéem ubbi yenn yoon yi ba nit ñi mëna dem mëna dik lolu mo tax mu mel lu xawa dik waye waaye xew bi mu ni mu dalé ci kaw seen kaw ni la dalé ci kaw ñep serigne bi yegg nako mi ngi koy tiso bu baaxa baax waye nak dogal bi yalla la te sun borom nak lu mu dogal rek daa fekk muy la gën waaw te dameen yi itam aw dameen la boo xam ne koo demee rek ñu am ci moom yaakaar ndax dameen la woo xam ne la li ñu wax ni moo ko sabab la ci njëkk mooy la doon yéene mooy xetli ab jullit di mbokkam di xaritam yàlla dogal ci la mu ca dogal kon mën nañoo xam koo jàppe ni ku jógoon di wuti lu baax far faat dab ko coow ni loolu nag la ci suñu borom waxoon rek la ñuy séntu ci moom moo tax sëñ bi waxoon kon nañ ko fi ñëwal andil ko ay njaalam euh, masawu leen itam. yéene sëriñ bi ci ak ñaanuk sëriñ bi moo ëpp doole lépp dañ na dina ci doon misaal rek ñaari million la loo xamante ne ngeen ko jàppalee ndax euh, sang taxawaayam ci ci yow lu mel ni moom buñ ko boolee ñaanuk sëriñ bi yaakaar naa ne dina soog mat ñaanuk sëriñ bi moom moo ëpp doole lépp dañ leen di ñaanal suñu borom dimbali leen euh, defal leen lu tax ngeen xam ne fu mu jëm moo koy gënal fi mu jógee yéen itam du ngeen rëccu dara ci dara ji seen Tuubaa ñetti njaboot yooyu nga xam ne nii kuréel gi fekki na leen jaarale ko ci commission sociale ñoom itam jéego yi nag kowe na seen njort lool ba sax dëfal na leen ba fàttaloo leen lenn ci naqar wi nga xam ne nii ñu ngi koy dund booba ak léegi ñun nag bu leen yàlla boole hmm. ba ndogal bu agsi dañoo ba ci kër jaale li fi des yëpp xanaa loolu kolleer la rek jaale ji rek moo am solo li ngeen ci bëgg yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla àgg seen yéene def ngeen lu baax lu baax wax dëgg yàlla kontaan nañ li ma xaw a mer yëpp dañ kontaan ndax ba lii defee kon bi dañoo mbooloo taxaw ñu doon benn ñu ma jàppale ba yàlla dogal ñu génn ñu jox ko loxo sappoor yi ñu yem ñu la waa koñ bi noonu la ñëwee fii ñu wan ñun ñëpp ay benn lañ léegi ba ñu demee ba dëkk bi rakk kii moo doon a dégg mu ne def leen ndànk xam man la bu dee man ay benn lañ man la ndax fi mu la taxaw lépp waa dëkk bi mu ñëw taxaw foofu. ndax fii lañu ñu daje kon ba loolu xëyee ñoom ñëpp dañoo bool ñu taxaw ci ba yàlla bu mu ñu génne ko ñu jox ko ci loxo sapeur yi mën nañu dellu seen kër kon ñoom ñëpp fii lañ daje ba yàlla dimbali mën nañ ndax saa yi nag ju tuuba nu na mën ngaa bëgg ñëw ni sax fekkee ndox bi moo am na ñu xam ne ñëpp dañoo génn waaw loolu ba ma mu ne ah wax dëgg yàlla nga wax dëgg la ndax yow sax wane dañuy nga ndax bitig ay xale ya xoolal ñu laa bàyyi si dama naroon tëj ñu ak li nga wax na suñu xol seet na amul lu sëñ Touba ku mu sëñ Touba nag bu la sëñ Touba yabalee lu jóge ci moom su xol war naa sedd suñu naqaar da jeex na tey yaay bi ba léegi day jooy ku mu bool sax sangala sangala lay wooye daf ko taxoon te ñaar bant rek la ko yàlla jox yu góor ku mu lay wax waaye su naqare jeex na tey jii sëñ Youssou mii wax dëgg yàlla gisuñu gisuñu ko waaye nu ko gis ci télé bi yëpp pasteefam topp sëñ Atou sëñ bi sëñ bi mu daanaka fa dem di ko siyaare yëpp sama suy bi la sama wala man mii ma fay dem kon nag ngay yéegal sëñ bi di ko daal ay ndiyaayam seen xol sedd na ndeyam xam sedd na bàyyam xam sedd na ay càmmoñam yëpp seen xol sedd na ak i jigéenam yalla yagal taxawab seigne mountakha ci yoon ay ñi and ak mom ñepp ak seigne touba sun xol seen guy li ëpp na nak sax reyna lool ñaa ngi doon sax nak da bañ koy denc seigne mi ko doon taxaw bu serignam yalla mountakha la ci jital ñam seigne mountakha muy dina ci def ñaan gi paré dina ko ñaan boole ci mu jidu ci bammel bañ ko denc da taw bu toy xep kon lool dal na xel kon nak sun xol yaakar gën na deugar sun jitt gën na rafet jërë ngeen jëf no seen seigne bi di siar bu baax yesu jëgal tëll ba na mm-hmm. koy. ci fàttali rek kuréel gi di Junatun Liman Nazamahu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides samp ko ñu fasantikoo ci commune bu Touba tubaa ca kanam ak Hizbu Tarxiya ak mbooleem julliti ak taalibe yi seen liggéey bon ko tàmbalee ak léegi ëpp na ayu bis ci ay wànqaas yu fasanti commission sociale di ci amal liggéey bu am solo. jëneen jëfa ngi joo xam ne nii day daal di firndeel. taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké du dañ mukk di ko am ci mboolem askan wi.